Mansour Fall ma nga noonu nag Sam Moussa kooku tey noonu gis ko ci Sam Moussa Pikine nekk kenn sa doomu Pikine la yaakaaru Pikine la drapeau Pikine la Mansour Fall kooku mooy Boy Niang numéro 2 piste de daay maa booy ñaa daa mel ni dañ koo lonkoo fu ma dem fu ma fa ah gars yi ne ni nga bëggee ndogu non non man dama ndogu c'est que fii nag sama kër la quoi ma yow yaa ngi fekk temps yi da ngaa bëgg pikin trop <laughs> damay tuxu ñu gis la di nga xam mooy 100 pour cent pikin nekk lu bett kenn la mooy sa taxawaay waaw la fii moom suñu kër la quoi ñiy def affaire bi ñoom ñooy suñu doole quoi ñooy suñu ginnaaw donc nit kenn du ko xeebal bisam quoi ñu duñu amee combat kenn duñu xeebal suñu bis kon bu ñuy bu ñu amee bis ñu ay combat te ñu ngi mais foofu ñu ñëw quoi def li ñu wal teewal leen ñu xam ne ñu ngi bokk ñoom gi a sama a Pape Sarr mi ngi yaa ngi dégg ñoom dunu nga ak gaa ñoom maalaw gaa yëpp waa Pikine ñoo aye quoi donc bu ayee les amis de Pathé foo ma ñëw bokk ak ñoom quoi a allah 100% Pikine bari taxawal li nga xam te ne mooy jàppale mbaru Pikine yëpp lan nga leen di soñu loolu dafa rafet loolu moo mës a am sax loolu moo mës a am sa a ah, dañ koy gën a yeesal ak mais ñun ñëpp ñoo mës a bokk ndey bokk baay donc bu ñu ayee ñëpp ñëw loolu mooy suñu doole ku xam doole ku xam doole Pikine xam ne mooy bu ñu soxlaa dara rek ñëpp ànd ci bokk ndey bokk baay loolu moom mës a nekk suñu doole ñun waa Pikine donc loolu la ñuy continuer moo tax ñoom ñu pare pour jàppale seen i doom loolu war na te incha allah yàlla na ci yàlla def jàmm rek incha allah. Mansour Boy Niang numéro 2 la ah mu ngi noonu dama nuyu sama nijaay bi rek bu jeexee jeex na càppaacoolu bi la ah yaa ngi koy am ah salaamaaleykum naa la. waaw fay naa la waaw. nga wax waa 100% Pikine. non 100% moom nii lañ ko xamee nii lañ koy defee. dëgg ñii suñuy rakk lañu ñu ñuy suñuy rakk muy moom muy Ama muy Boy Niang suñuy rakk yàlla dimbali ma nag tey yiñ daan def yëpp mu ngi ci loxo mortaale bi tey waaw tey ku xam Pape Sarr bu pikin tey xam na ne tey yi mu doon def pikin tey ay rakkam a ngi nii di ko def kon loolu du ma def lu dul sant yàlla tey dem nañu ba ñu am ba am ay relève mooy sama rakk yi kon lii lu rafet la waaw. ñaari doomu pikin ñaari espoir kii di Ama Baldé am combat royal contre Modou Lo Boy Niang numéro am combat contre Tapha loo leen di wax. taxawaay rek taxaw rek comme ni daan taxawoo combat mi waaw di si ñaan ay di si ndam di ci woo Pikine yëpp bu soobee yàlla dañ ciy am ndam bu yàlla nañ ci taxaw taxaw taxawaay comme ni daan taxawoo waaw nañu gunge suñu ñaari rakk yooyu yëpp ba yàlla may leen ndam waaw. du ñu bàyyi dara ma si woo Pikinois yëpp waaw waaw. <laughs> Mansour suñu nijaay la bëgg naa ko bu baax ah. nuyu. ñu leen di fay jàmbaar. am mbégte ak contentement tey kenn dootu la présenté Eumeu Sène doomu Pikine bu mag boobu. ndogu solidarité ñi ko organisé mooy les amis de Pathé. waaw laaj sa taxawaay tey lan nga ak bi nga ñëw fii. waaw les de Pathé moom vraiment. even li ñu def dafa rëy parce que déjà suma doomu day suma xarit suma mag. mooy président muy Landiang may profité ci occasion bi di félicité ay AS Pikine bu baax a baax ci ndam lu ñu ama ah. di félicité tamit Mor Talla Pape Sarr fii suma sees de fii laa juddoo yaroo fi màggee fii li américain wax this is my home waaw Eumeu Sène fii la juddoo màggee fii li mu doon tey ñu yokk a def kon Pikine aw ma seen fay tey man maa xewle Eumeu Sène xewle Boy Niang moo xewle Ama Baldé moo xewle waaw kon c'est nous dans nous quoi waaw di profité bi nag di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaanal Sénégal koor gi bañ nekk si mujjantalu koor ñu fekk ay koor yu bari ñu nekk ci hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu jóg ñu nekk euh, ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen jàmm ñu nekk si hôpital yi tamit aussi ak ndam si yàlla yàlla xar leen 100% Pikine fas yéene jàppale mbër yëpp di nekk Pikine loolu di ñaax ñu yokk ko. waaw li gars yi di wax yokk cere dolli ñeex ah <laughs> waaw noonu lay demee quoi. waaw préparé combat ne suñu kanam yëpp ñu ci ñaan yàlla suñu borom ñu ndam. waaw ñu xaar ko ci fan. waaw du yàgg dara incha ñu koy dox xam naa du yàgg dara bientôt rek di ngeen dégg dara taxaw mais nag ñi ngi entraîné ñi ngi entraîné baax di waajal. laataa loolu ñaari doom Pikine Ama Baldé ak Boy Niang numéro 2 ku ne am combat di ñaanal Ama Baldé jël roi bi incha allah yàlla mën na ko booy ñaa tamit si combat yi mu dugg yëpp yàlla defal ko ci ndam waa parce que ay champion lañu waaw mën nañ ko waaw. trois avance yi am na pare na pour jël trois avance yi avance yi. <laughs> waaw maa ngi ci waxtaan rek waa gars yi bu ñu waxtaan bu dégg suma staff vraiment seen ginnaaw ko waa ñi ngi entraîné suñu roko di waajal waaw. Ah. supporters yi di leen sant rek di leen gërëm bu baax di wax ñu yokk ñaan seen mbër mi ngi waajal bu baax mi entraîné. nañ yokk ñaan yu baax incha allah di ñaana bépp fansan ak lamb yëpp di ñaana Sénégal tamit aussi maa ngi ñaan Sénégal yàlla fi jaamu yàgg yàlla musal ñu ci affaire yi fi paas yëpp bañ a amati parce que ñun la lépp ñun la suñu biir ñooy xeex ñooy gaañante ñooy yàqal ba pare ñooy jëli ñooy jooy suñu deret yi tuuru ñooy jël di robi ji. kon yàlla na jàmm yàgg Sénégal jàmm rek moo fi moo fi moo fi war a am mbas mi tamit aussi yàlla génne ko fi ak jàmm. voilà ñi ci ñi mu ci yóbbu ñëpp ñu ngi leen di jaale ñu ngi leen jaale di leen ñaanal tam aussi yàlla xare leen àjjana. Ah. champion bi troisième combat bi noonu xaas diggante ak Balla Gaye numéro 2 kenn gisu ko lu waral loolu. waaw loolu loolu moom xëy na noonu la ko yàlla suñu borom bëggee waaw mi ngi ci combat dañ koy ñaanal rek mu ne ci jàmm préparé combat am dootuñu ci mën a wax dara quoi kon mu ngi ca combat. mu am sa xarit Gris Bordeaux lay wax ci combat boobu. <laughs> di ko ñaanal rek di ñaanal Gris ak Gris sama doom nday la waaye ñu koy ñaanal mais ëmb. loolu la. mais gars yi dañu gis ne njaaj ba pare nag changé look. waaw non lii moom yàgg naa ko. mu ngi soog a génn quoi dafa sol laa fa saa yu solee laa fa rek. boobu dafa koy takk waaw. mais mais mais est ce que combat bi est ce que combat bi gars yi dañ ko gis. non non lii dama koy dindi yàgg dara dama ko am envie ko nii rek quoi mais dara. non liggéey nag quoi ñu ngi liggéey ñu lay ñaanal ndam. ok merci jàmbaar jërëjëf waay. merci Mansour mu ngi noonu ah c'est l'enfant de Pikine borom taashi nga borom daf du wér cay <laughs> ama seen kenn du moom ah. nañu wax ah dañuy jàkkaarloo président daal di koy nuyu président nuyu nañu la. ñu ngi ziar ñu ngi ziar ñu ngi sant bu baax di leen sant di leen gërëm seen teewaay di leen jox seen wàccuwaay waaw. 100% Pikine organisé ndogu di waajal jàppale nga xam ne mooy mbëri nekk Pikine naka ngeen di préparé pour waajal jàppale seen mbëri yi nekk Pikine yëpp. waaw ñun Amitié Pathé lii bu ñu ko organise du lenn taxuñu see jóg utuñu si xaalis utuñu si dara boole waa Pikine muy sóor di mbër di képp lépp ñu doon benn changé xar-xamu Pikine moo tax a jóg mais ñëwuñu ko ànd ak kenn wala kii que ce soit ñun loolu rek moo ñor leneen ñoruñu waaw loolu moo tax a jóg Amitié Ama Baldé am combat royal ndax ngeen koy préparé ci mobilisation. waaw loolu moom wax bu yàqu la rek Ama moom boo xëy na sax lu tax ñëwul gàllankoor moo ko tee dafa après préparation. mais café gi nekk fële moom moo fi yónnee ba gars yi di joxe ay café fii pour gars yi mu si ndogu di ko sant di ko gërëm te xamal ne ko ñun nu ñuy waajee combat bi sax moom pareegu ko parce que roi bi dañ ko war a dellusiwaat biir Pikine ñun ñëpp incha allah te ñu ngi koy waaj bu baax nag te ragaluñu si dara nag. yee Ama lu wax moom bariwul. teg ko jeexal ko rek waaw loolu kese la moom xam na ñu xam waaw roi bi lañ soxla te moom xam na nu mu demee waaw mooy loolu roi warul gëj Pikine dafa leer. président moo wax loolu ah damay gestu rek wax ak keneen gi salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. ça va na ngeen def di sant di nuyu waa Pikine waa yëpp di sant ñu ñi teew ci ci ci ci ndogu ami de pare bi tey nga xam ne dañ ko tuddee ndogu solidarité ñu ndogu boo xam ne dañ koo def pour dajale tous les Pikinois autour de l' essentiel tous les sportifs Pikinois. dañ leen dajale fii nii pour ñu gën a nekk benn gën a mànkoo gën booloo pour que lépp lu Pikine di song rek ñu mun koo daan. Ama Baldé am combat royal capital lan ngeen koy wax. ama amul dara luñ koy wax lu du mu entraîner rek na taxaw physiquement am doole rek loolu rek lañ ko sant ndax xam na loolu bu ko amee rek ci kattanu yàlla ndam lu fii la jëm incha allah. ban conseil nga jox supporters yi. non supporters yi moom comme mobilisation yi ñu daan def la ñuy la ñuy continuer di def defee Ama ko mbëru ñëpp di ko defal tamit AS Pikine nag yooyu yëpp loolu sunu taxawaay ñun Ami de Pato loolu sunu taxawaay de Pikine comme ni ñu ko waxee rek fédérer tous les jeunes de Pikine fédérer tous les sportifs de Pikine loolooy objectif bi ba nga xam ne ñëpp dañuy nekk benn ba nga xam ne lépp lu ñu rek ci kàttanu yàlla ñun dañ koy daan incha allah. bu baax ah, merci beaucoup. Mansour Fall 100% Pikine lañ wax gis ci doomu Pikine Fadel borom Dakar Buzz ki nga xam ne social ci lu baax lay dox ah dama koy nuyu rek daal di moom nuyu naa maa ngi lay fay ma sister ba am nga nakay tey. looy dundee koor gi. Ah, koor daal koor koor koor gi neex daal ndax koor goo xam ne daal da ngay woor ba ngoon sax di fàttee naan sant yàlla par rapport ak ni mu daan mel mu njëkk sant rek. 100% Pikine organisé na ndogu ñu gis la ci doomu Pikine am combat Ama am combat ak Modou Lo loo gisee combat boobu. waaw ku ci ne nag am nga combat capital Ama Baldé am na combat capital ndax dafa fekk ki nga xam ne actuellement mu mën ci lamb ji ndax mooy roi mu jël ko yaa ngi koo topp nag. am na komba ku ko ne yaa mën Modou Lo da nga koy nax Modou Lo ku ko ne yaa mën Ama Baldé da nga koy nax ñaari nawle lan respect rek waaye kenn ku ci nam nga bis boo xam ne mat na la bu bak tubay ñoom ñaar ñëpp nga xam làmb am Baldé dama fukk de jeunesse jàpp ne moom set Modou Lo moo leen mën yow lan sama sa gis-gis si loolu waaw bu defee xam nga moom loolu la gëm mais tam Modou Lo loolu la indiwaale yi Modou bi muy dugg ci mbëri tollu ni mbëri waa jàpp leen comme dajal moo la kon ñaari mën-mën yu dajal la ndax kenn ne jàpp nga ne yaa moo tax te kenn daan nag xam nga kenn daan moom mais ku rek yor nga lu bu daan sa morom ci fit ci ci jàmbaar ci bëre ci gàllaaj ci ginnaaw kenn ku ci am nga lu daan sa morom mais ku ci respecté wul sa morom mën nga am lu la bett am na. beneen doomu Pikine di Boy Niang numéro 2 ñaari avance benn sax la ñu lijjanti Tapha Tine numéro 2 noo waa ndaanaan la waaye daf fekk jàngoro yëpp mu bàyyi ko fi jël ndoxum cité ndax Tapha Tine ku ne xam na ni euh, defet bi naqari Bombardier ci làmb moo ko teg. Elton li ko naqar ci làmb moo ko teg waaye Boy Niang day mbër moo xam tam yaakaar naa ne tam eh, eh, Sa Thiès boo ko laajoon tey li la gën a métti ci làmb loolu lay wax muy diggante ak Boy Niang kon kenn du ko ci ne rek am nga lu daan li ma jaaxal mooy ñaari avancé rek léegi nag làmb daa avancé ba léegi sax da ngay dégg mbër bu jël ñetti avance mais yokkute làmb rek la mais daal Tapha mën naa daan booy ñaa Boy Niang mën na daan Tapha Tine kenn ku ci am nga daan sa morom ndax kenn ku ci am nga sa fort tam am nga sa faiblesse ñoom ñaar nag pour mbër mel noonu da ngay am fort fii am faiblesse fii duñ wax faiblesse nag waaye kenn ku ci ne xam nga li nga mën ak li nga mënul loolu am nga xam Boy Niang numéro 2 mu nekk doomu Pikine ban conseil nga koy jox mu respecté Tapha Tine te xam ne dajewul ak Fadel Tapha la lay dajel ndax Tapha du Fadel mu respecté ko loolu rek laa koy dolli te xam ne la lay dajal mbër mu naqaree bëril lay dajal mbër mu am doole am ginnaaw te ragalul te defaruwaat nag loolu rek laa koy conseillé mu respecté ko rek loolu it laay conseillé Tapha jàmbaar la samp yoo bay na respecté it Boy ndax Boy Niang bukkub timis la ku ko dàq sa gét bul nelaw day dugaat. saay saay ku ko dàq sa gétt bul nelaw day dugaat bukkub timis laa ko tuddee ñaari ndaanaan. Fadel la borom Dakar Buzz borom social di ko kontaanee bu baax sama mag yi nee naa leen maa ngi seen ginnaaw ah, teg leen rek ma topp man Mansour Fall la Ndeye Mbacke ak Mamadou Maya du mën a ñàkk. <laughs>